salaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal di amaat mbégte daje ak ci seen émission bi di ganu Equivox fii ci Equivox TV tey nag ñuy dalal boroom xam-xam boo xam ni Sénégal kenn dootu ko fi présenté moom mooy fondateur bu Africa Jom Center nekk kamit koo xamante ni ku ñu ràññee la ci xeex bi ñeel sàmmoo gi ci àq ak yelleefu doomu aadama yi kooke moo di Alioune Tine euh, Alioune Tine ñu lay di la ziar. waaw maa ngi leen di nuyu di leen ziar euh, di ngeen def loo xam ne lii mooy téléspectateurs yi ak njëriñ Sénégal. Mhm. ci loolu la ñuy dox euh, bés bu nekk ñuy am yaakaar ni euh, di ngeen mën a am lu leen jariñ ci waxtaan bi ndaxte ki ñuy dalal kenn dootu ko présenté ku xam-xamam màcc la ci doxalinu réew mi ak tolluwaayam li ñuy commencé euh, Alioune Tine moo di laaj la tey noo jàngatee situation politique bi Sénégal ni réew mu mel fan yi en tant que quelqu'un koo xamante ne si da ngay analyser yëf yi di ko càmbar noo gisee situation bi. waaw li nga xam ne moom laa gis daal daf ma daf ma tiital daf ma tiital ndax euh, lii xew Sénégal mun naa ne guléet ci làmgu politik gis nañ fi daanaka lu ne <laughs> waaye nag lalu làngu politique te it mu lalu ci mbir mu demee nii euh, dafa nekk loo xam ne lu bees la te dafa nekk domaine boo xam ne tamit domaine bo bu sensible la extrêmement sensible te dafa nekk ay mbir yoo xam ne dama ne tiroir la ni ñu koy doxalee ak ni nga xam ne dañ koy régler xam nga loolu affaire domaine bu sensible bu fekkee ne amuloo noo koy régler rek mhm. euh, mun naa indi musiba mhm. te en fait musiba mbaa bokkumba boobu mhm. moom la ragal mhm. moom naa mu indi ay tension mhm. indi ay violence euh, te balay loolu di am il faut ñu waxtaan ak nit ñi pour pour pour dal am ci côté yëpp xam nga ki nga xam ni moom lañu ñu tuumaal du ku ndaw koo xam ne dafa am gannaaw mhm. te li ci ginnaawam tamit mhm. booy xool ndaw yi ñoo ci ëpp mhm. te mu ne seen yaakaar nga <laughs> yaakaar dafa foor waaw te yaakaar bi mooy li ñuy wax enjeu de pouvoir maanaam koo xam ne am nañ moom yaakaar ëllëg mu wuutu koo xam ne mooy Macky loolu moo tax Eh, mbir mi bu fekkee da nga koy traité du yomb. waaw nekk assemblée nationale tam. su ko mhm. defee assemblée nationale day nekk. Mhm. dans les preuves. Mhm. justice day nekk. dans les preuves. exactement. société bi nga xam ne moom ci boppam lañ ne mi ngi ne dans les preuves. gis nañ sax li nga xam ne moom moo xew euh, Casamance. te it ci li nga xam ne dund naa ko fii. ci ay crise politique. yu am solo. souvent li nga xam ne mooy suñu institution démocratique yi day mel ne duñu ko àttan. toujours dénouement yi ci li ma gis de. dénouement yu bari ci temps wu Abdou Diouf ci temps wu Abdoulaye Wade ci waxtaan lay jóge ba jëlee crise du 88 bi c'était une crise terrible boo xam ne dañu pari élection yi rek ñu jàpp. Euh, candidat bi tëj. jàpp ñi ko dëkk tëj. def état d'urgence. ba pare def aussi euh, cour feu bañ ko defee temps ñoom Mamadou Dia ngi fi. waaw Mamadou Dia ni ah. nañu libéré président biñ tëj. amoon na ay commité li ñuy wax euh, de résistance populaire. man ci ñu ko defoon ci la bokk. Euh, amoon na tamit li ñuy wax aussi nga. lii di état d'urgence ak euh, lii également di li ñuy wax euh, mm-hmm. couvre-feu mm-hmm. man manifestation bi maa ngi ko organisé woon parcel fees del ak ay nit te guddi laa ko organisé concert de casserole yi aussi amoon na waaye nu mujjee waxtaan mm-hmm. waxtaan lu am solo la waxtaan te Ousmane Ngom moo ma ne niñ daan waxtaane dañu daan jël président Wade nga xam ne ma woon rëbës jël ko ñu jël oto bu banalisé ñu dem Popenguine di waxtaan <laughs> ak lu am solo la waxtaan boobu am solo ñaareel bi mooy euh, xaw ma ndax yéen koy fekkee 2001 mhm. mhm. mois de décembre amoon na lu Moustapha Niass waxoon mu ne ah six milliards yi nga xam ne Taïwan joxe nañ ko de mhm. dañ ko luubal Wade mer ci lool ñu daal di ko commencé inculper. Mhm. di ko jàpp ba ni dañuy dindi muuraayu kii rek laa immunité parlementaire. waaw. Mhm. bés boobu man nii ma jóg daal di dem président Wade. Mhm. ak ma ko woowaan ci. crise bu amee da lay wuyu. ñu dem gis ko ma waxtaan ak moom. donc ñuy waxtaan. Ah, tey kii mu may déglu kii ma dikki ñam. ma ne woon conseil juridique presque. oui ñuy waxtaan du waxtaan ba def benn communiqué. Mhm. daal di bàyyi mbir mi mu tëdd. Mhm. waaw ndax loolu def nga ko ci ak président Macky Sall fan yi fi réew mi toll. bon moom nag gisaguma ko mais quand même dox naa gis naa quand ay chef religieux. Mhm. waxtaan ak ñoom ni leen dañ jóg. waaw ko def naa ko. nañ jóg parce que mbir mi du lu ndaw. waaw du ndaw. Euh, mbir mu. bu sérieux la kéemaane la voilà li nga xam ni daal maa ngi koy dox. maa ngi koy dox ak beaucoup de discrétion nag. du ci mm-hmm. du ci place publique bi nga koy. voilà exactement ñu ngi mm-hmm. def daal li nga xam ne ñu ngi mën ba pare mm-hmm. di wax. parce que aussi bu fekkee ne dafa am xeex. toujours ci li nga xam ne moom la ñuy doxalee. mooy ki nga xam ne mooy yor doole ji. yor yar bi. Eh, moom la ñuy téye loxoom. nañu wax def ndànk mais même temps tamit ñu wax ñeneen ñi ñu def ndànk parce que dañu dugg ci dafa mel ni dañu dugg ci at mu bees ci mbirum démocratie ak état de droit exactement waxuma sax Sénégal mais Afrique de l'Ouest dégg nga élection wu Niger yi nu mu mel mhm. dafa amoon consensus bu ñu amoon ci transition démocratique yi alternance yi ñu koy topp kii ñu koy topp ñu yeewu suba rek loolu lenn moo ko àndi mhm. gis nga suñu sous région bi alal yu bare ci génn. Mhm. alal ji intéressé na une certaine classe politique te liñ ci am xëy na du bari mais ñi mu gën a intéressé mooy ñu ne bitim réew te ne fi ñoom bu histoire daan am sax dañ naan bin bin. Mhm. daal di bind union man ko bëgg a dee temps yi wàdd. waxtaan ak ñoom des États-Unis CEDEAO CEDEAO danaan atte waaye léegi gis nga CEDEAO danaan tekk lu xew Niger ñu ngay rente bu metti bien que ñu naan alternance am na ñi ngi wax mais li ñu coupé lii nga xam ne mooy internet yi moo xam du ñu xam lu ci dee mm-hmm. donc il faut que ñu waxtaan. man daal loolu laa gis. loolu nga gis euh, bu ñu xoolee sax yaa ngi koy wax nii dañoo dugg ci at bu bees ci wàllu démocratie ci euh, Afrique rawatina tey bu ñu ñëwee Sénégal fan yi affaire yu coowalu Ousmane Sonko bi dafa nëbb yu bari gis nañ fan yi la ci ginnaaw. Euh, seen naataango bu ngeen miin te itam ñun tam ñu miin ko ci wàllu woowu mu di Boubacar Seye ñu jóge si Boubacar Seye ñëw ci coow lu wàllum patrimoine bu sa Seck jàll ci loole ba fan yi affaire Ousmane Sonko bi dafa nëbb ay préoccupation yu bari euh, noo jàngatee euh, évolution fee yi nga xamante ni tey daanaka sax ñun ñu si bari seen wàll liberté dañ ko dañ ko tënk gis nañ barki moo Ndiaye arrestation yi am ci diggante Guy Marius Sagna Clédor Sène ak Assane Diouf ak ñeneen ci coow li ba tey yëf yi ni muy avancé di dem bu nekk rek ñëw gën a doy waar moroomam ndax noo koy noo koy jàngatee ci fond bi. mooy li ñuy wax enjeu de pouvoir. tey enjeu de pouvoir dafa jël yeneen fànn yeeg lépp lu am solo féete la ko boor waaw enjeu de pouvoir maanaam tey 2024 horizon 2024 la ñu ubbi ak nan lañ ko ubbee mhm. loolu nag moom moo gën a tiital mhm. parce que enjeu de pouvoir bi mooy euh, en réalité paradigme bi nga xam ne moom mooy paradigme essentiel te it du man maa ko jëlee noonu état bi ak mode de fonctionnement am mhm. noonu la ko jëlee ñi nga xam ne tamit dañu nekk dans la résistance ak dans la défense mhm. ñoom tamit noonu lañ ko jëlee mhm. loolu loolu tax coow li metti tey waaw de pouvoir bi te dafa fekk ne eh, bon dans le passé dans un passé récent képp koo xam ne yaa ngi am nekk opposition. Mhm. te am doole. te ñun ñi am yaakaar ne kii mën naa jël nguur gi. Mhm. dañ lay faagaagal. Mhm. buñ ko defee benn yoon kenn. def ko ñaari yoon kenn. bi yoon. ak nit ki lu mu mënti def. te tamit doomu aadama mooy doxe noonu. ak lu mu mënti def. léeg-léeg ñi ñooy jéng. léeg-léeg sax dootul nekkati état mooy jéng mhm. mais ñin ñi ci seen bopp ci mhm. seen révolte ñooy jéng mhm. te psychologiquement yooyu yëpp da koy xool parce que man musuma gis coow lu mel nii bu yaa ngi coow di jàppale foo foo gis nag ku ne ngi jóg ku ne ñu ngi jóg loolu mooy wane ne tey li nga xam ne mooy suñu institution democratique yi nga xam ne moom lañ am ak fiñ ñu toll attanuñu coow la Mhm. gis nañ sax si communiqué bi ngeen fasal démb yéen ay euh, alerté sur la question de la crédibilité de nos institutions publiques notamment la justice ak euh, parlement bi euh, da ngeen ci am xel mu tey wala. du man rek. Mhm. justice Sénégal tey amatul crédibilité bu fekkee ni dafay am ay dossier politique mhm. justice Sénégal tey dafa mel ni ab ngànnaay boo xam ne <laughs> moom la pouvoir bi am. te loolu euh, du ci kii yi rek lañ ko gis. na mm-hmm. mu tuddati euh, parti politique yi. Mm-hmm. mooy société civile. Mm-hmm. mooy activiste. Euh, ni nga xam ne ñun ñemee naan ko daan wax. walla di ko dox. léegi liberté yooyu yëpp dafa bànjiku waaw. <laughs> Boubacar Seye li mu wax. jarul ngay dóor sa doom parce que présidence ci boppam waxaat na ko àndina ko. Mhm, exactement gis nañ te ci débat boo xam ne débat scientifique la. ñoom ñoo ko woote. Mhm. nga ñëw débat bu mel noonu. Mhm. argument moo koy kii mais du du kas du xët xët. loolu loolu yooyu yëpp. tamit day wane ne. ñu ngi basculer. mais basculement bii nga xam ne moom la problème bii di indi ak lu mu mënti mel nag. ak nu mu mënti mel. Mhm. Mhm. Mhm. c'est-à-dire que <laughs> kenn xamul lu xew. ci li nga xam ne mooy fait divers bi. te mu seq ñaari nit. fait divers bi dafa mujj ëpp ëpp dafa beneen dimension bu mu jël sax booy xool ci wàllu géopolitique ndax ñu nga ko léegi ci li xew Casamance fan yi armée bi am na ay base rebelles yu ñu nangu. déetuwaay ñu toogaat tuuti gis ñu am luy dox ci diggante Ousmane Sonko yow boo analyser lan moo war a nekk relation bi dox entre Ousmane Sonko bi nga xamante ni Casamance la la sokkee ko ak la xam la nga xamante ni xew na fa Casamance surtout ci wàllu géopolitique ak Casamance li muy représenté ci wàllu euh, euh, démocratie politique fii ci Sénégal. Euh, xam nga bu mbir amee souvent. mën na am sax ngay créer ay relation yoo xam ne amul. Mhm. mais am na ay fait quand même yu ne fii. Mhm. fait yooyu mën loo ko loo ko weddi. Mhm. donc euh, attaques yu ñu attaqué. lu bees la du lépp li def ci attaque boobu bon na. parce que tey effectivement sanctuaire yi fa newoon dindi nañ ko. te ñi nga xam ne dëkkuñ foon dellu nañ fi ñu ne. donc du lépp. pour man. Eh, guerre bi mooy problème. solution bi mooy. jàmm ak waxtaan. waaw léegi nag yan lien la am. dëgg dëgg man mënuma ko établir de façon automatique. peut-être que dinañ xalaataat gis naa ñu ko ñu ko def nag. parce que dafay liir gis naa ñu koy def dafa liir. Euh, Ousmane Sonko waxuma ne problème identitaire amu ci. boo ko waxee tamit fee yaa ngi fi quoi. mais. bon Ousmane Sonko Dakar ñu koy soutenir du ay ay ay waa Casamance. boo demee maatam c' était le numéro 2. Mhm. après après Macky Sall. exactement boo demee diaspora bi. Mhm. Ousmane Sonko quand am na ay vertus. Mhm. man ànduma ak moom mais de temps en temps. am na vertu am na doxalin indi na débat indi na lépp loolu moo tax peut-être que euh, ñu bari ni yaakaar nañ ko léegi nag su fekkee ne Casamance la mais Casamance dañ koy tiitaroo. kooku moom. lu naturel la. Macky mii tukulóor yi dañ ko tiitaroo. lu naturel la. mais foog ñu rester dans les limites. vraiment des standards de la République. rester dans les limites yoo xam ne mooy limite yu vivre ensemble. sa veut que yow ci sa bopp nga xam ne mooy leader bi da koy def pour nga renforcer ko. Mm-hmm. parce que. débordement yi am. man bëggatuma woon sax liggéey Sénégal rek. moo tax mu ubbi boo ñu gisee ñun suñu liggéey yépp c'est sous la sous-région gis naa li xew Côte d'Ivoire topp ko. Mhm. def nga Mali aussi. Mali am ma may. E- expert indépendant bi. Mhm. Guinée. Mhm. dem naa fa gis naa ko may toppatoo fi may wax nii sax Guinée lay waajal nii. donc gis naa li xew yeneen yi. te ñooñu ñëpp boo leen waxee. seen référence en matière de démocratie Sénégal dañ dañ naan ñun ñëpp Sénégal la ñuy topp moo tax Sénégal dafa am responsabilité particulière bu fekkee ne dafay doxal mbiru démocratie ak ak ak yelleefu doomu aadama mais bu fekkee ne da waxal sa aqulaayu taala dañu dellu gannaaw kii ci mbiru démocratie ak kii tamit ci mbiru ak ak yelleefu doomu aadama kooku dellu gannaaw am na ci dellu gannaaw bu ñu koy wax pour que euh, autorité yi ñu jël ci comme on dit leçon. ñu mhm. seet nañ lañuy ñuy defee pour avancer parce que euh, réew bu bu buñ buggee mu avancer euh, du lu autorité yi def rek nga ni moo baax. Mhm. <laughs> que doo leen dimbale sax. Mhm. day am yoo xam ne du ay gàllankoor la nga ne ah lii de buñ ko changé woon mooy gën doxaleen yii de buñ koy defaree mooy gën moo tax euh, nga nekk chef d'état nga tëdd njaaxanaay di déglu ñëpp ñi d'accord ak yow ñi d'accordul ak yow lu am solo la. am solo la. démocratie Sénégal euh, dellu ginnaaw bi. du dellu ginnaaw bi démocratie. Mm-hmm. dellu ginnaaw bi moom la xam ne dafa mel dañu nekk dans un nouvel âge mm-hmm. boo xam ne démocratie dafa dellu ginnaaw. Mm-hmm. pratiquement ci réew yëpp. ci Afrique ni mu delloo gannaaw moo graaw parce que dañu amoon benn moment boo xamoon ni vivre ensemble bi mi ngi dox. Euh, alternance yi mi ngi dox. ba 2010. en réalité ñi jël pouvoir bi à partir de deux 2010 yëpp. Mm-hmm. écoutez c' étaient des opposants yoo xam ni sonnoon nañ lool. exactement ñun ñu newoon seen ginnaaw. waay gis nañ leen 2012 ci xeex bi. xeex bi le mouvement M23 et tout ça. avant M23 2009 2010 maa woon Guinée. Mm-hmm. di fa xeex. ak yeneen réew yi. Mm-hmm. ñu ngi woon aussi Niger. bi ñu def Tazarché ci fa xeex troisième mandat bi. Mhm. Sénégal lañu moom moom mu jeexanaa. yow ñu fi nekk da nga leen pratiquer ñu ngi woon ñu ngi woon ñu ngi woon Burkina Faso. Mhm. di ko ñafe tam. Mhm. donc sous région bi dafa jékki-jékki. nekk ci âge démocratie boo xam ne li nga xam ne fàtte woon nañ ko bàyyi nañ ko mu doon régime autoritaire. am justice partisane. am un état partisan ba pare feeñ. ba pare di jalgati ay élections. ba pare léegi réeroo féewaloo ak fitna. nekk léegi ci biir Afrique de l'Ouest Afrique de l'Ouest la ñëpp léegi ñëw na Sénégal. Mhm. fitna gi loolu moom moo tax ñun ñu jaaxle di wax ne vraiment na ñëpp dal. Mhm. parce que dal bi dafa am solo trop. Mhm. na ñëpp dal. te képp koo xam ne mën nga jóg wax dox nga jóg wax dox ci côté yëpp. pour effectivement ñu dal. fexe tamit bu fekkee ne tamit lii xew am na. ñu fexe ba dëkk gi. génn leer parce que dëgg gi jëpp lay arrangé day arrangé Sénégal dëgg gi hmm. day arrangé Sonko dëgg gi day arrangé ñëpp hmm. day arrangé république bi hmm. donc ñi nga xam ne ñoom ñoo war a doxal parce que problème bi ñu gën a am ci lii nga xam ne mooy politique mooy arbitrage bi ak contentieux bi ak ñu koy réglé réglé contentieux bi nga réglé ko ba mu dox aw ci yoon ñëpp bokk d'accord ne ah ni ñu ko doxalee de nii la mooy indi indi jàmm. la démocratie au Sénégal de 2012 à maintenant noo ko jàngati. waaw xam nga yow li nga laajte dafa nii <laughs> waaw dañu bëgg rek. kenn ñu benn analyse bu yam rek ci Sénégal démocratie. non Sénégal démocratie am depuis 2012. dëgg neex yàlla dafa dellu ginnaaw. parce que gis nga démocratie bi fi mu gënoon a doxe mhm. c'est vrai régime bu PS du régime boo xam ne régime bu extraordinaire la. mais am na moment boo xam ne da ngay gis chef d'état bi ci boppam mooy jékki-jékki daal di ni ah léegi de dama bugg doxal yoon dama bugg doxal démocratie te loolu pour mu am tam c'est pas que moom rek moom mooy jël euh, ndogal. day fekk ni ñin ñi bëgg ko ñin ñi taxaw ñin ñi résister mu feeñ te loolu dafa feeñoon. ci temps Abdou Diouf boo jëlee élection 83 yi dafa metti bi mu ne ubbi ku mën a nodd na nodd nga jël élection 88 dafa metti <laughs> ñu ñëw 96 nga jël élection locale yi ak ni mu doxe woon ak ñit ñi ni ñu jógee ak pas-pas bi ñu amoon nga xam ne vraiment ñit ñi dañu bugg ci la juuf commencé ne ah xaaral ci lañuy def onel <laughs> léegi Diouf xeex bi muy xeex du contre ay adversaire am rek xeex bi ñuy xeex mooy contre parti politique am parti bi nga xam ne jalgati lañ xam nguuru lañ xam privilège lañ xam bu commencé nag ci di doxal yoon moo tax 98 parlement boobu ñu am depuis indépendance mosuñ ko am boo demee na nga xool parlement 98 incha allah ténor yëpp nga fa woon démocratie bi gilli waxtaan bi ci waxtaan ay kii la bi Wàdd ñëwee li nga xam ne buggoon na ko def na ko. Mhm. mais quand même matière politique buggoon na moom tamit nguur gi mu téye ko. Mhm. ci li nga gis suñu parlement bi nasaxaat. Mhm. <laughs> faut bien le diir parce que boo xoolee sénégalais yi tamit c'est des légitimistes. Wàdd dafa gagné rek ñëpp daal di bu jël parlement bi yëpp dugal leen ñu ñu dem foofu. parlement bi fi la commencé affaire bu ñu ñëwee aussi am. parlement gis nga ko de 2011. ñu ni ah man biñ 2011 après le 23 bi biñ fa jógee. dama ne ñëpp jàng nañ. parce que quand xeex bi ñu xeex. ak assise yi nga xam ne moom lañ def. assise nationale lu am solo la assise bi ñu koy def 2008 2009 pratiquement horizon 2012 dafa génn 2012 dafa génnoon. feeñ leer mu am ay élections yoo xam ni c'était des mhm. élections locales. Mhm. ñu gis gars yi gagné ko. ça veut dire que am na une nouvelle culture. ak mhm. nouveau changement buy am. moom ci la ki ci la ko ci loolu loolu. ki ci ëppal njëriñ. mooy Macky Sall. ñu jóg 23 juin ñu xeex. gis parlement bu mel noonu. juin ñëpp gis nañu. kii di Moustapha Niass ak. <laughs> xeeram xeer bu ñafe bi nga xam ne aussi kii gis nañ ko ak matelas bi mu amoon. Mhm. bi ñu bëggee demoon fanaane à la place de l'obélisque. Mhm. solu taxaw wax yi ñuy mhm. wax yëpp mu ngi génn ci kii donc xeex boobu ak culture bu bees bi mu waroon a indi moo màbb. c'est que culture bu bees culture démocratique bi nga xamoon ni waroon na ko indi ñu jël assises yi teg fi ça veut dire que fekk assises yi dafa am dafa am yu leer yoo xam ne da koo teg pour que état de droit sax. pour que démocratie sax. Mm-hmm. pour que droit de l'homme sax. Mm-hmm. waaw yu ji assises yooyu nag sax loolu moo ne woon outil bi nga xam ne moom la ñu waroon a teg ñu jël ko teg ko fee soo ko tegee nag da ngay tëñax tëñaxi rek. Mm-hmm. te en réalité depuis <laughs> suñu démocratie bi day tëñax tëñaxi rek. Ah. dem fii dem fii léeg-léeg bu yàggul def nañu benn benn dialogue ci bi bi pandémie bi ñëwee. ñëpp dem. fekki président mu ne vraiment période bu extraordinaire. yaakaar naa ne ci ci réew mi Macky Sall séquence historique boobu moo ci gën a extraordinaire. Mhm. mais yàqu na. d'accord euh, léegi tamit. yàqu na parce que loolu mhm. tamit pour nga def ko pour mu continuer. Mhm. il faut vraiment nga sax ci principe démocratique yi képp puis nga sax ci aspiration yi nga xam ne moom la sénégalais yi am sénégalais yi dañu bëgg jàmm. te jàmm moo nekk suñu ressource bi gën a am solo. jàmm ak stabilité mooy ressource Sénégal bi gën a am solo waaw waruñu ko lépp lu ñu war a def dañu def fexe ba nga xam ne dañuy sàmm. pour jàmm ji nekk fi pour déggoo bi nekk fi waxtaan bi nekk fi. Mhm. ñuy traiter affaires yi sans passion. Mhm. te tey euh, boo gisee passion yi ni muy déchaîné woo. Mhm. doo xam sax fan la jëm. 2012 euh, ne 2008 boog plutôt bi ngeen ci nekkee nee nga horizon 2012 dafa leeroon nañ mais tey fii ñu tollu horizon 2024 dafa flou ndax élection locale yi ba tey ñu ngi koy xaar gisaguñ ko. te itam coowul troisième mandat bi bari lan moo war a nekk taxawaay bi tey. taxawaay bi daal dafa war a nekk ne muy ñii di intellectuel opposition ñii di intellectuel pouvoir ñii di militant démocrate pouvoir ñii di militant démocrate opposition am na loo xam ne benn territoire am na ay ay champs yoo xam ne ñun ñëpp dañ ko war a bokk muy Sénégal muy stabilité muy jàmmam muy vivre ensemble bi cest à que ak état boo xam ne dafay doxe jaaxaan ak justice buy dox yooyu dafa nekk yoo xam ne dafa war a leer leer leeraay boo xam ne képp koo xam ne kii def nga lu dul naka sax nga nekk mbokku Macky nga nekk mbokku partem nga nekk alliéem justice taxaw taxawaay bi nga xam ne moo ci war a am te président quelles soit soient les circonstances warul ne ah man dafa am ay kii yoo xam ne dama ko teg dama ci def sama conc parce que kooku boo ko defee dañ la naan mais problème bi teg ci sa conc wala te en réalité loolu la ñu ñuy wax presque te it doone am na ñoo xam ne ñii tamit justice mënu leen dal c'est-à-dire que yow boo nee chef d'état même bu amee doo ko wax cest boo ko waxee te yow ngay gardien constitution yi di nga gardien institution yi ubbi nga benn espèce su porof ndoll boo xam ne ñin ñi dañ ci dugg te aussi ñin ñi ñu ngi ci dugg yooyu yëpp nag il faut président am ay conseillers yoo xam ne ñii dañ farak moom ñii dëgg la ñuy def man man mii dama ne sama bopp man espèce su conseiller informel la. <laughs> bu ma mënee jot wax ma su ma mënul mu ñuy wax. parce que vraiment dañu nekk ci période boo xam ne ci àdduna bi yëpp la. boo xool li xew États-Unis rek yàggul ak Trump. kenn mësul woon xalaat ne. Trump dana ne dañ sàcc sa élection yi. waaw mais lan moo sauvé États-Unis. Trump juge yi nga xam ni moom lañ àndal. bi mu ne dañ sàcc sama élection juge dañ ko ne Trump da ngaa juum. gagné yi. bi mu demee def li muy def ni gars yi dem leen dañ sàcc sama kii dem leen dem leen ngeen occupé euh, kii bi nu mu hmm. tuddati. capital bi capital bi. Hmm. gars yi dem occupé ko. Hmm. kii nga xam ne mooy vice président maanaam bras droit am. moo ko ne juum nga. insurrection nga appelé li nga war du sa du sa du kii. kii nga xam ne moo nekk partem te nekk quand président wu euh, comment dirais-je ah, kii naka naka naka laa koy waxee. Mm-hmm. mooy mooy mooy président wu républicain yi. Mm-hmm. seen seen seen seen seen seen seen seen ne ko. Mm-hmm. newoo ci yoon. loolu moo ñu manqué. maanaam li ñu manqué mooy benn culture démocratique ak républicaine boo xam ne. nga nekk ak président ak nekk ko ak président. bu waxtu wa jotee nga wax ko. ñaar yoon. nga ni président ah lii yoon la. Mhm. li nga xam ne nag moo xaw États-Unis c'est parce que yoon am na fa. Mhm. parce que quand même même bu fekkee ne ànd nga ak président bi te nekk juge. Mhm. bu yoon taxawee da wax ni yoon a ngi nii. taxawal ko ay institution am nañ fa. yoon ak institution ñoo tax ba nga xam ne tey kii di Joe Biden bu fekkoon ne mu ngi woon Afrique mi ngi. résidence surveillée mhm. wala mi ngi kaso wala mu ngi exil mhm. ba pare Trump continuer ne président mais yoon mhm. ak institution moo tax ñu ne Trump lii du dëgg Biden toog nekk président de la république ba pare indiwaat jàmm xoola xeexu kii bi rek pandémie bi. résultat yi ñu am en peu de temps aux États-Unis c' est extraordinaire looloo tax dal baax. dal lu am solo la. dal lu am solo la. Mhm. ànd ak sa am solo la. Mhm. am na solo euh, yegsi nañu ci njeexantalu euh, waxtaan bi euh, waaye benn laaj bu mujj rek moo di fi nga daanelee ci ndaw ñi tey université mu nekk benn espace bu ñu politiser. fan yi gis nañ ko te mu bëri ay ndaw loolu bëri ay mit ay parti yoo xamante ni ñoom ndaw yooyu adhéré nañu ci loolu boo ko gisee si réew mu mel ni Sénégal ak université nu mu toll nga xam ne dañuy wax sax ni la c'est le Sénégal en miniature euh, ndax du nekk loo xamante ni du la tiital. non régression la université ni régression bi bi am dafa am doole dañu wax xalaataat université xalaataat nekkinu euh, étudiants yi. Mm-hmm. parce tamit. Euh, loolu yëpp dañ koy xool xalaataat aussi avenir mhm. étudiants yi xalaataat suñu société suñu société xale yi ndaw yi ñoo ci ëpp mhm. jigéen ñi ñoo ci ëpp mhm. mais lan mooy responsabilité jigéen ñi ci centre de décision yi ak ndaw yi lan mooy représentation wu jigéen ñi ak ndaw yi ci suñu institution ou république je que lu ñu war a xalaataat la tam ak nan lañu war a def ba nga xam ne ndaw yi dinañ commencé commencé am yaakaar ne réew mi am nañ ci seen place mën nañ fa dëkk te it mun nañ fa aussi li nga xam ne moom mooy seen. immigration clandestine dem ne bu ma dee sax du problème. Mhm. sa mbokk yi ñëw jàppale la fayal lañ la bu ma dee sax dana problème boo amee jeunesse boo xam ne ci état d'esprit mhm. radical bu mel noonu la demee boo amee problème yi il faut nga xool nan nga koy def. Mhm. parce que soo ko deful ba nga xam ne da nga diviser société bi. wala ba nga xam ne politique kenn dootu ko gëmati kenn dootu ko yaakaarati ah da nga yeewu suba rek nga gis ay imaam yi commencé ñëw di wax <laughs> wala ay yi ñëw di wax Mali ñi ëpp di xeex te nekk ay jihadiste quatre-vingt-dix pour cent ay maliens lañ xam nga dafa am caractère insurrection lu tax ñoom li nga li ñu mës a gëm bi ñu juddoo léegi ñu yeewu suba ay jóg bu jóge bitim réew rek wax leen dara ñu topp ko c'est-à-dire que gis nga sens boo ko deful ci politique ba nga mu am perte de sens mais yeneen sens ñooy ñëw yoo xam ne ça peut être pire te aujourd'hui ñu ngi nekk en Afrique de l'Ouest yëpp espèce su perte de sens am na ñoo xam ne nag moo leen arrangé ci bitim réew ak ñoo xam ne dañu bugg alalu suñu réew yeeg suñu exploitation pétrolière yeeg gaz yeeg lépp lu stratégique ñoom dañ fexe ba nga xam ne état yi dañuy faible su ko defee bu ñuy ñëw di négocier ressource yi dañuy sëgg rek for ko comme li xew RDC lu ne la ñuy ñëw sëgg for kon nag il faut que am africains yi déggoo mhm. te que ci période déggoo lañu ñu nekk parce que période bu metti la ñu nekk bu nekk mhm. période pandémie mhm. période pandémie bi ñëpp dañu war a ànd bokk déggoo parce que état yi dinañu fragiliser dinañu vulnérable parce que ndóol bi dafay ñëw waaw nekk nag di foo di indi ay affaire ak ay yeneen li ñu gis mu tegaloo yépp ci séquence historique yi tey nga jàpp fii ëllëg nga jàpp fee pour essayer di détourner. aussi attention nit ñi leen focaliser ci leen ci lu dul essentiel. day tax ba ëllëg si biir bu fekkee ne politique yàqu na ñëpp lay yàqule. kon nag ñun ñëpp ñoo war a sàmm xam li nga xam ne. moom lañ bokk. muy Sénégal muy suñu ay institution muy suñu jàpp. jërëjëf ñu amoon mbégte dalal kii di Alioune moo di fondateur bu Afrikajom Center euh, ñuy rafetlu disponibilité bi di la jaajëfal tamit ci li ñu dalal. waaw jërëjëf. merci beaucoup mbokk téléspectateurs yi ñu ngi leen di jox daje fii ay fan incha allah.